seeti gee ko ña nga xam ne ñooy sunu ay xalifa généraux noo ngi leen di ziyaara di leen sopp bu baax a baax di leen ñaanal yàlla ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér boobu ñaan itam ba tey dañ ci boole ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi ndax Sénégal xam ngeen que ñu ñu tudd léegi danoo am macha allah lu bare loo xam ne daal dañu koy apporter société bi yàlla mën a faye yal na nu leen yàlla fayal ci barke Seydina Muhammad sallallahu ñu daal di bàyyi xel ñi nga xam ne itam ba tey caabi daf leen euh, féete gannaaw noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara massalu leen coono toogaay yooyu yàllaay dogal waaye yàlla na gaaw dogal ci ñoom ñu jóge ca bërëb yi ñu nekk te bu boobaa itam lépp loo xam ne lal nañ ko rek yàlla na ci sunu borom def barke ñu ngi seet maladi yi bépp hôpitaux bu nekk ci Sénégal moo xam sax ci àdduna bi ñu ngi leen di seet maladi ñaanal leen yàlla ñu gaaw wér ba dellu seen ak ay activité daf cay am solo lool lool ñu fàttaliku ña ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen balu àq bu baax di leen ziyaara di leen fàttali ne yéen a ngi seetaan seen émission wareef ñu baaxoo nag di ci ànd ak ndoy koy baan mami Linguère daanaka fan yi dafa nekk congé waaye soxna Ndiallu Ndiaye ngi fii di feggoog ñun ak ki nga xam ne itam mooy soxna Ami Dia macha allah Seyda Ami Dia moom itam ñu ngi koy ziara ma jox rek kàddu gi ndoy baan mu daal dee nuyoo bu ko defee rek ñu daal dee sumb fii ñu fàttali leen ne numéro bi 88 la 628 22 22 88 628 04 05 ngeen mën a indi li nga xam ne mooy seen ay CD ak seen gis-gis ci émission bi Ndoye Bane maa ngi lay nuyu bu baax. jaajëf Eva ñu ngi lay ziar di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ziar waa Pire Sañu Xóor gi yëpp di ci ziar sunu xalifa ba di sëriñ Mansour Cissé mm-hmm. sëñ Maodo Cissé ak baay Bado Dieng ak monsieur le maire sëriñ boobu ak moom parent Djibi Diagne ak sëñ Moustapha Ka ak tous les notables de Pire di ñaanal ñëpp jàmm rek yàlla na waa réew mi am jàmm waa bitim réew mi am jàmm fu Sénégal sénégalais mën a nekk rek ci àdduna bi mhm. yàlla na ko yàlla may jàmm bu baax a baax amiin baan di souhaiter joyeux anniversaire à <laughs> Ndeye Batoor Baan Ndeye Batoor li tax nga jiitu ma ci Ndeye Batoor Baan joyeux anniversaire Ndeye Batoor waaw waaw sama mag la nekk fa ca Sébi mooy kii jël tànk njëkk bi rek moom vraiment Euh, tànk bi daal mooy kadoom. bi mooy kadoo mooy kadoo tànk ba demoon ca waaw tabaski mooy kadoo bi quoi. parce que vraiment sonn nañ bi déjà ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñi ngi seetaan rek Mamadou Ndiaye raxma tamit ñu ngi koy nuyu. dëgg la mooy sama xarit temps yi. Mhm. maa ngi koy ziar bu baax a baax di ziar waa Kaolack ak Mariama Sarr madame. le maire de Kaolack di jaar ñëpp rek ñu baax ñëpp ñu nekk ci réew mi yàlla na leen yàlla may jàmm. amiin ma laaj lu ma gis. ndooy loo gis la Eva euh, Ndiallo Ndiaye <laughs> maa ngi lay ziara di la dalal ak jàmm. di di da ngeen di xëy ma dàq doy ba xam ngeen loolu ay accusations yi grave waaye ma ci jaaxal kay soppeeyee ma jaaxal ndax xajuñu sax. loolu laa ragal nag loolu laa ragal. <laughs> aywa bisimilah. salaamaaleykum Eva maa ngi nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan TFM yëpp. di nuyu tout le monde macha allah. di ñaanal ñëpp jàmm di wax asalaamaaleykum soxna Eva di la nuyu di la ziar. di nuyu El Hadj Ndoye Bane Ndoye maa ngi lay nuyu di la ziar. di nuyu soxna Amidia macha allah Seyda maa ngi lay nuyu di la di nuyu sama yaay Adja Marème Diop ca Yoff di nuyu sunu waa kër gi Tappé Diarra Xeysar maa ngi lay nuyu di la ziar bu wér sa soppe bi jot na sa sunu yooyu tamit macha allah waaw di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm tey ñaan yàlla émission jàmm ak salaam ci kàttanu yàlla ak mbaaxam Seyda Hamidia kontaan nañu ñu ngi lay dalal ak jàmm macha allah ñoo gën a kontaan xam yi nag euh, complication yi da cee bëri ndax ñi feragul eh, waaw ba pare bare wax lool macha allah <laughs> <laughs> bisimilah macha allah waaw madame Fall macha allah soxna Eva ñu ngi kontaan macha allah ci bokkaat ak yéen euh, émission bi baax na auzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi allazi manna ala ibadihi bi bextati xayril mursalin yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal xikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin wa sallallahu wa sallama ala almab'is alhuda sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alghuril mayamin wa man tabi'a tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din amma ba'd rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Eva ñu ngi lay ziar di la ziar bi ñu bokk plateau bi Ndoye Bane soxna Ndiallo di leen ñaanal jàmm ju bare bare bare masha Allah bokk masha Allah jërëjëf yal nañ ko bokk ak yow bokk ko ak mbooleem téléspectateur bu toog di ñu seetaan bu ñu fàttalikoo rek thème bi jeudi nag daanaka dañu ci doon accueillir Taïb Socé je le dis toujours masha Allah moo tax suñu xel xel bu bu bu nu accès jeudi suñu xel yépp dafay dem ci moom incha allahu taala xam nañ ne léegi nu gis ak moom yàggatul dara yal na yàlla def ko féexal ña nga xam ne ñoo fa nekk àdduna nii la yàllaay tege nattu te faaw bu dikkee nag da nga koy nangu boo ko nangoo mu noppal la lu waaye wul rek mu sonal la ndax yàlla kenn du ko forcé def nga ko lu mu bëggul lu ko neex rek lay def kon lu mu def ci ñun nangu nañu macha allah yal na yàlla dolli nu jàmm euh, jeudi passé euh, nuñ koy waxte semaine la ñu sumb li nga xam ne mooy waxtaanu ak accueil maanaam dalal tatagal nit bu ñëwee ci bërëb. Mm. am na ñoo xam ne fii rek xamuñu la ñu la ci dëkk bi wala am yeneen ak yeneen duñu la dalal ni ñu la war a dalalee. Mm. moo ne sunu borom waxul loolu ci diine. Mm. Euh, soxna Ami Dia dañuy xamal ni ñu. war ngaa teral nit ki balaa nga koy xam. war nga koo dalal balaa dalal ko ak njëkk ak teraanga. Mm-hmm. laataa ngay xam ku mu doon. <laughs> dëgg la mm-hmm. ba ci xanaa xamoo soxna sax Eva ba yàlla di wax na ngeen takk soxna pour dallu moo taxoon. Ah, ci kër yi. bien sûr ci kër yi sax fa la tàmbale ci diggante jëkkër ak jabar. ndax yàlla daf ne wa jaala baynakum mawadda wa rahma waaye li taskunu ilayha dama def ci seen diggante lu ñuy tuddee cofeel ak mbëggeel waaye nag ngir ngeen mën cee dalloo. kon kër yi sax bu amul dal loolu mooy répété wu ba ci biir bërëbu liggéeyukaay. ci kër yi la tàmbalee en ah. général da nga gis koo xamante ne dafa am lu mu fanaanoo Eva ci këram yóbbu ko te bërëbu liggéeykaay ba fanaanoo xol bu naqari nit ki ñëw rek ci hôpital bi moom it ak feebaram fanaanoo moom xam nga ne lam fanaanoo peut-être que diggante ma am na loo xamante nii neexul kii ñëw tamit fanaanoo li nga xamante ne moom mooy feebar fanaana naa feebar ba ba seet jot mu ñëw su ñëwee tamit boo ko bëggee sëf la nga xamante ne yow moom nga fanaanoo woon sa kër su boobaa yow di nga ko sonal ndax ki feebar moom gisul lu dul bi nga xamante ne moom la njëkk a dajeel mu dalal ko mooy dal gi première dal gi mooy suñ ñëwee nga fexe ba feccil ko sa kanam xam nga Eva dañuy wax ne kanam du kaso ne ko ci tëj mu xam ko mm-hmm. ki ñëw la nga war a def mooy ree ko soo ko reewee dina tax li mu yenn woon lu mu diis diis dina am lu ca wàññeeku reetaan dafa baax ci nit mais dañu wax ne du ñëpp ko mën moo tax ci accueil yi war nañ ci teg ay nit ñi nga xamante ne ay nit ñu ubbeeku la ñuy doon ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax yàlla daf ne ko wala kunta fazzana xal qalbi lam faddu min xawli ko mm. mun ko gis nga boo nekkoon nit ko xat xol mm. Mm. wala nit koo xam ne mënoo supporter mënoo accueillir ay nit sooy wax kenn du la faale. xam nga Eva nit ñi dañu am fulla am na loo xamante ne dañuy wax ne nit ku ne am nga mbaax goo denc mais li nga denc ci caay caay moo ëpp. Mm-hmm. caay-caay dafa jege nit am na loo xamante ne boo ko fay xosi wala nga wan ko ne ko nii laa mel rek mu mu yuril la moom tamit na mu mel moo tax nit ki nag soo koy akkee war nga ko wan kanam gu gu goo xamante ne kanam gu ubbeeku la ba nga xamante ne dina la ñeme ba fa mu jëm même si bu fekkoon la mu fay ut sax munu ko fa am mais na nga ko akkee dina tax ba xolam sedd ba bu génnee dina génnaaleeg xol bu yaatu Eva génnaale ko xol bu yaatu ñu war ci bàyyi xel ne nee nañu euh, naka bu yàqu euh, gunge naka. Mhm. ngan bu yàqu. ngan bu yàqu nga defar ko gunge bu sori du ko defar gunge bu sori nga ma yàq euh, na la waroon dalalee. Mhm. ngay ma bëgg laa gunge bëgg laa rey ko wax. la ma defoon de noonu la de. aywa ndoy baat li mu soxna si li mu am na solo mais itam dama leen laaj yéen jigéen ñi bërëbu liggéeykaay yu bari. Mhm. akay bu jigéen fay lay. te nit ñi kontaanuñu waaw lu tax jigéen su amee liggéey ñu ci ëpp du ñëpp nag ñu ci ëpp suñu amee liggéey seen arrogance day feeñ ci seen bërëbu liggéeykaay waaw dafay waaw li lool dama koy lay laaj yéen jigéen loolu lu ko waral bon xaw ma ma dañ fay wone dañ fay wane seen foofu la am pour mën a wane seen seen seen seen pouvoir mënuñu ko wane ca kër ga ndax boroom kër gaa fa nekk wala suñ demee suñ amul jëkkër borom kër ga seen papa nga fa wala seen grand frère mais suñ nekkee ci bërëbu liggéeykaay bi ñu ci ëpp du maanaam yar bi day des surtout suñ nekkee ci accueil ba loolu lan moo koy waral ci jigéen man loolu jaaxal na ma trop même ci tali bi da koy seetlu des fois da ngay gis jigéen gu gu gu naqari dara ci kaw tali bi ah, ci kaw eh, ci ci dawal. xaw ma je pas lan moo koy waral. Mm-hmm. mais day am. en général soo góor ak jigéen amee problème ci tali bi. Mm-hmm. da ngay gis ku jigéen ka ànd ak benn tàngaay goo xam ne ak arrogance boo xam ne jéggi na dayoo. Mm-hmm. donc jigéen ñu ci bari ci seen bërëbu liggéeykaay euh, nit ñi amuñu ci sax seen moroomu jigéen dañuy day ñëw sax ñu koy indil ay problème seen góor ñëw ñu ko indi ay problème soo gisee ñu ci bari di suñu koy wax di wax hôpital hôpital hôpital euh, joxuñu ñu hôpital yi mm-hmm. wax dëgg yàlla ay nit ñu baax a fa ne ay nit ñu normal ñoo fa ne di liggéey mais des fois dañuy gis ñu ci kaas bi fu ci ëpp foofu la mm-hmm. parce que foofu affaire u bakkan la problème mu vie ou de la ah, moo tax tey jii su fa accueil ba normalul nit ñi dañ koy kaas lu bari après hôpital ci police ak gendarmerie rek ñoom seen après foofu tribunal après foofu maire yeeg yooyu moom maanaam mooy place publique yi mais hmm. hôpital moom da nga gis jigéen ñi su ñuy am doom entre jigéen lañuy ñuy waxante ca saal ba ñoo ko xam <laughs> lan moo tax jigéen di wax yenn baat yi moroomu jigéenam hmm. te yow mii jigéen gi fi mu toll ba ñëw fi yow tolloon nga fa mbaa di nga fa tolli. Mm-hmm. mais man beneen beneen jërëjëf baan bu dee da nga. daal rek mm-hmm. question bi may posé mm-hmm. soxna Ami jaar di ko posé Ndiallo posé ko téléspectateur yi dolli ci ci sa question bi nga ne yenn jigéen ñi doonte d'accord ma torop waaye lan moo waral tubaab bu jigéen bi bu lay rewle ngay accoucher tubaab bu jigéen bi da lay nabbi nabbee moo xam bu mhm. jigéen bi la moo xam bu góor bi mhm. lan moo waral ñun comme li Ndoye Bane wax mhm. ci yenn maternité nga war fa dem ñu war wax eh yow noppil bi du ŋaan loolu lu ni mel ko wax <laughs> mi ngi lay seet mi ngi na oh, ma ngay transpirer comme yow li ngay transpirer. qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs. Eh, pour lan yow fa nga dem nga war a réewale indi euh, doom nu mu mm-hmm. rafetee yàlla bu la joxee. Mm-hmm. profession eh, boobu. macha allah yow nga war am benn comportement boo xam ne kay accoucher. Mm-hmm. da nga ko traumatiser. su mënoon day jug mbéj la tëddaat ca taabal. sama benn xarit moo jël jabaram yóbbu ko France. waaw sama xarit bi yàgg na fa. waaw jabar ji dem di passé dem visite ca hôpital ya fekk fu ko góor ku koy seet ak yooyu. mais ba mu demee wax lu mu wax jëkkëram. yéen seen médecin bi wuyu la damaa nopp. ndax toppatoo bi man parce que topp tooba bi bi bi muy bi mu doon am Sénégal fii ak ba muy amee mu dem ni jëkkëram seen médecin bii dama nopp dafay nekk di ma may kafe di ma nab nappee ak di ma raay kii nag mënu ko déedéet fii noonu fii nii la fii dañ lay toppatoo noobu la da toppatoo dafay bañ nga stressé dafa bëgg nga nekk nekk à mais fii dañ lay buddi mais Eva Eva bu ñuy xool weñ demal nga demal nga doxi waaw xam ndeysaan mhm. macha allah ñu ngi ziyaara sunu baay bi nu woo démb ba fekke woo ko ma ngay wax ne nanu gën a defar colin bi macha allah ndeysaan waaw mara nga toog nag ndax ah, mara nga na mara nga ndax ci club boobu la bokk xam nga nit dana woote normal mhm. la wax ak yow mhm. nga nangul ka la mu wax xam nga danga ne nit ki demal nga doxi soxna si doxin ba ca kanam nga ñëw waaye yow demal doxi yow demal waaye demaguloo façon bi nga koy waxee façon la dañ ko a sol Eva balaa njalloo jël li ma li ma bëgg a wax ma gis nga yàlla bi muy yónni ki nga xamante ne moom mooy yonti yàlla Moussa ci Firawna kenn ku nekk na xam ne ne Firawna la mu wax Iblis ah. wax ko keroog ba ko Iblis déggee dafa taf gémmiñam moom Iblis ndax dafa wax ne ah. bi gën a kawe Iblis li saay saay waxul loolu hmm. te def na ko izhab ila Firawna laa mu ne ko nanga nanga ma demal ci firaaw na mm. nga waaral ma ko waaye fa kuulaalahu xawlan layyinan xam nga xawlan mm. layyinan Eva ñun loolu la ñu yeta laallahu yatazakkaru aw yaxsha mm. yàlla dafa wax ne yontu yàlla Moussa ne ko demal ma ci Firawna waaye booy wax ak moom na nga wax ak moom wax ju jekk bu tedd mën na am ci sa façon wax bi xawlan layyinan maanaam seddaay mooy seddaay xam nga wax ju duur ñun dañ koo soxla ci suñu kër yi te amuñu ko en ah, tàmbali ci suñu jëkkër yi dama lay dolli waaw daguma la uh-huh. dafa am sax ñoo xam ne uh-huh. pour ñoom douceur yëfu nooy la. waaw am ñoo xam ne waaw na lu mu soxla ci man. te wax dafa war a génn. dafa sa soxna sax toog di wax ak moom loo bëgg téye ko nii. nar ko woon mais c'est-à-dire ni ñu ko di ko raay ne ba ko narul woon sax xaw a jóg. xam nga ñun yooyu lañ manqué suñu jëkkër yi dañu soxla yooyu. dañu di kale sa nit ki dafa neex. sama bi ñëwagul yow sa ceeb bi des na sa xorom <laughs> waaw kañ maa wax bu ah, dëgg. Ah, wax bu dëgg tamit eh, eh, ni ngeen ko manqué noonu lañ ko manqué mais ba tey loolu ba ah, xam nañ loolu ndooy baax waay wooyu ma yéen soo leen ah. solee yére yu baax rek soo leen di génn la non non yére suñu koor suñu xaas yëpp mais fekkee buñ ko solee du ngeen nañu rafet na tamit xam nañu dañuy sañ sa bëgg a dee te boo génn waaw xamoon Adja di nga ko bàyyi wuy ma suñ ko waxee fekkee ne buñ sañsee eh, bu ko xoolee lay déglu mais xoolal waaw d'accord suñ ko waxee suñ ko waxul mm. sol leen rek mais yéen seen yëre yi gën a forox ngeen di sol ci biir kër gi. soo leen di dem ngénte di ngeen di doog a sol seen yëre yi baax waaw lu tax ngeen gis si forox yi te yu rafet du ngeen nangu ngeen sol macha allah dama dama kontaan dama kontaan ci anam yu bëre. Mhm. ne keroog ba tey ñu ngi wax wàllu accueil mhm. mais waxuñu wàlli accueil mhm. ci ci diggante ñaari waay dencante ne lay sànq ba nga dikkee yaa ngi wax ci ma ma wadda wa rahma mu mel ni ku ci nekk dafa jël euh, place am ku ci nekk dafa am bu ci yàlla teg surtout nee na sànq même suñ leen waxul mhm. ni rafet na mhm. sol leen rek loolu mooy manque de géné euh, manque de générosité su fekkee mun naa ko tuddee noonu bien sûr on n'est pas généreux entre nous sa jëkkër da nga ko war a xool sa xol bi naat nga kontaan nga ñaanal ko yàlla bu ko yëgeeg bu ko yëgul dëgg la sa soxna da ko war a xool nga ni mhm. yàlla alhamdulilahi rabil alamin ba nga ma mayee mhm. soxna bu ni mel nga ci am yi ngay yaakaar ne mhm. soxna si mooy magasin danga koy dénk kon xam ne dañ ko dénk suñu borom dénk ko yow sa bopp nga dénk ka dama yaakaar ne kooku war nga ko mun tatagal defar ko surtout waaye gis nga danaa dénk dossier boobu ñoom ajaratu Fatou Sow Sarr maa ngi koy nuyu bu baax <laughs> nuyu club d'ami wam mm, soo duggoon di def sondage ci biir kër yi mm-hmm. beaucoup de femmes sont malheureuses surtout damay ah, wax rek te yàlla rek les hommes aussi sont malheureux mm-hmm. ñaanuñu yàlla kay les hommes souffrent en mm-hmm. silence d'accord donc ah, avasi waaw ma àggali xam nga bu waxee ci wàllu jigéen <laughs> jigéen dafa am lu ñuy xaar ci moom pour ñu tëj pour ñu jàppale ko rek jigéen yàlla daf ko wóolu wax naa ko sànq dénk la bu ñu la dénkee da sàmm kiy sàmm nag moom war na am ouverture war a am mm. largesse war a am générosité tabarakallah fatilan macha allah mm-hmm. li ñuy xaar ci jigéen dafa bare ba du doon suñu sago la mm-hmm. jigéen yëpp dañuy complété ñun ci suñu biir mm-hmm. ñu ngi ci ñu ngi def ay waxtaan ñu ngi def ay kuréel ah, c'est la même chose que dem góor ñi tam góor ñi tamit ñu ngi waxtaan di def ay kuréel ah ni ngeen ñu defee kuréel ni ngeen ñu noonu la salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ni ngeen ñu réunion noonu leen leen ñu réunion ak yi waaleykum jël suñu xaas jël suñu doole pare duñu xaas <laughs> ah vraiment. mi ngi lay delloo ziyaara bu wér. ah di ziyaar Ndoye Bane di ziyaar soxna yooyu toog. jaajëf jaajëf. man nag damay xaw a tënku tuuti rek. donc ñaari anecdote yoo xam ne ci affaire wu. moom moo tax. aywa bisimilah 2014. ah dama en 2014. waaw. dama demoon ci benn hôpital bu mag fii nii Sénégal. Dakar. dem di fa accoucher. waaw léegi bi ma demee. ñu ma gis fa ñuy traité nit yi traitement yu yu doy waar. Mhm. parce que dafa am benn femme boo xam ne dama fa fekkanteeg moom. Mhm. yàlla dogal euh, yàlla jël kanam mais si anam yu yu yéeme yéeme ma xam ne que ne yàlla moo dogaloon ne bés boobu du woon passé bés boobu. Mhm. mais des fois dara dina am mais ñun sunuy loxo mi ngi ci nekk si biir. waa ñu ñu maltraité ko sama kanam ba mu faatu. allahu akbar waaw waaw loolu moom mu nekkoon lu nekk sama xol depuis boobu ba léegi nii. maltraité bi ni mu demee woon noonu. maltraité bi ndaw si dafa ñëw dama ñëw ay 4 heures du matin ñëw pour accoucher. Mhm. bi ma ñëwee ma dugg sama hôpital yi boo duggee si boo nekk boo duggee si biir amoo ki lay accompagner amul droit dugg si biir. Mhm. bi ma ñëwee fekk mu nekk si tolluwaay bu bu yéeme sax. Oh. fekk sama biir di metti ndaw si ne ma lan mool dal ma ne ko sama biir day metti mu bindal ma benn garab ne ma boo demee da nga koy jël fi ma taxaw mu koy mu koy bind femme bi taxaw ci porte bi ne biiram dafay metti ñu ne ko dama nga dem tëdd di la dal moo dal ñëpp mais dama nga dem tëdd parce que yow tolloo koo fenn mu ne dimbale leen ma ngir yàlla war a suul ndax fi ma toll nii sonn naa torop ñu ne ko dara sonal la lu dul sa yére bi nga sol polyester la lu dul sa yére bi la polyester. Mm-hmm. musumi musumi yére bi yére mu sol def ni ko ndeyam juwe woon yal na ko yàlla yërëm. Mm-hmm. mu taxaw si mu toog si suuf sukk si suuf di leen jéggalu affaire boobu nag jàpp sama xel jàpp sama bopp man ma ñibbi ma ñibbisee ma wax sama borom kër ne ko foofu daal sama xol metti na métti boo xam ne que ni ñemewuma faa dellu. Mm-hmm. ñu delluwaat ci foofu noonu may war a am doom ma gis ne que ni ñu may traité traitement boo xam ne que ni parce que xam nañ fi ma bokk. ñun ñëpp a yem si yàlla. fi ma toog sama doom du man ma gis ne que moom doom génn na. judd na mu am ay seex. benn seex bi am problème respiration beneen seex bi ñu ngi ko téye. te moom jëkkëram nekku fi jëkkëram mi ngi bitim réew. góoram mi ngi ci biir biir hôpital bi taxaw di ko xaar. comprendre nga léegi nag bi bi bi bi góor bi ñëwee dugg si mu laajte ana xale bi ana jaay ji. ñu ne ko yaay gi dafa dafa am problème mais ñu ngi koy kii léegi mu commencé di koy rek sama xel dem ci kooku. bi sama xel demee ci kooku affaire bi yéem ma trop ñu ne ko femme bi góor bi génn euh, chef bi nekkoon foofu jël jël benn jël benn geste daf ko nekk ni femme bi dafa mujj des. affaire bi nekk sama bopp nekk sama bopp ba sama jur bu tudd doom man xaw ma sax ma def. ko ma demee na seen kër dem di leen seet di seet bébé yi si laa gis ni kër yi moom si boobu ndaw si moom moo faatu. mu mm-hmm. ngeen jéggal ma nag ci dafa am leneen loo xam ne maa ngi jéggalu. mooy que ngeen mën ci wax mooy ci agence yi yóbbu nit ñi màkka nit ñi bu ñu jënd billet fii nii da nga neexal façon neexal te pour nga jënd billet si ñoom. dina nga la neexal façon neexal bu dee pour nga jënd billet si ñoom lu nekk nañ la ko dig. Mm-hmm. mais il suffit que nga jëlee fii dem màkk. Mm-hmm. faaleetuñu la bu ñu waxantee ko faalewuñu la ñu ci bëri li doon xiif damay comprendre mais li ma fa dugg métti na métti boo xam ne su ma bokkul woon tey nii xam ni que ni man am na leen loo xam te du du du kii sax man nit à l'aise donte ne yàlla moo ñu woo ko bu ñu jaam yàlla ñu ne yonent bi teg na lu nekk yonent bi laa été choisi mais mm. pourquoi ñun ci suñu bopp ñun ñuy soxorante ñun ñuy defante lu bon. dëgg la ci koo xam ne musul dem nga war ko yoon bi. dëgg la mais ñoom dañuy am habitude di dem ba nga xam ne que ne da ngeen ne lu bëri dañ koy farat dañ koy euh, euh, xaw démystifier tuuti. Mm-hmm. comprendre nga il faut que ñu respecte suñu bopp. waaw hôpitaux yi li fay am doy na waar. dëgg la màkk li fay am doy na waar. nit ñi xiif foofu noonu ray xiif di leen ray ñuy dem bay yelwaan doy na waar agence yu bëri yoo xam ne privé lañu man si laa bokkoon. si laa bokkoon may gërëm maa aussi c'est moom nekk foofu. ndax jàppale nañu ñun suñu agence. jàppale nañu bu baax danaa jël lekk diñu ko jox ak Abdou Aziz mbay bu ma waxee ñoom dinañ xam man maay kan. ndeysaan mais dañ ñoo jàppale bu du na ak ñoom ñun dinañ sonn trop. parce que. Mm-hmm. Sénégal a ngi. témoignage bu am solo. xam nga ndeysaan. Sénégal soxna Amidia dina ci dikk. Mm-hmm. moo tax c'est dommage. Hmm. ndax léegi balaa ñu lay jàppee nitu yàlla rek nga am façon boo mel ak noo def. waaye am na ay nitu yàlla ci biir nit yi macha allah. ci zaahir mën nga koo bañ a xam. Hmm. waaye boo demoon ba ca biir da nga ko xam. <laughs> faaw nu dellu si waat ndax màkk gi nu wax. màkk hmm. lañ wax de. ñu fay uti gi suñu borom. nga yóbbu nit ñi ba màkk parce que. Mm. am naa yaqin ne su dul woon noonu du ko waxee mm. noonu faruma fee teew dëgg la nga yóbbu nit ñi ba màkk ñu nekk ci ay tolof tolof te yow bërëb boobu nga dem mm. nee nga sunu borom nga fay wuti yee eh, yaay mm-hmm. fayaguñu euh, ni mu ko waxee ñu fay billet bi ñu jëndee billet yi mm-hmm. ñëw ci yow pour nga yóbbu leen war nga mettre sa bopp mm-hmm. ci condition yoo xam ne soo demee di mottali sa ay charte ca bërëb ba ba nga xam ne bu ëllëgee mhm. daañu yéene Amidia ne ko demal ci diw nañ ci bàyyi xel mhm. agence yi mhm. je pense que dañ leen war a xoolaat restructurer ko encore organiser ko ba nga xam ne dootul nekk yëfu pucuk pucuk bu ñu koy teg ñu teg ko ci yoon ànd ak ay chartam ci hôpitaux yi rek ma tëj tëjee loolu dafay dale nañ ko wax ca kaw day dale wax naa ko sànq nga dikk ñu ne la demal nga doxantu demal doxi mais ne ko chéri da am nga koo àndal. Mhm. demal doxi. Mhm. massa massa mhm. boobu nga wax sànq. day dindi lu bare. te itam dañu war a xoolaat. est-ce que ci biir hôpitaux yi. du ñu jël accompagnant. parce que quand tu accouches. nga ñëw gis ay gan rek xaw ma nag man nekkuma ci ci koor boobu. gis ay gan rek mën na la tiital. tandis que boo gisee koo bokkal. yaay la wala goro la mu taxaw sa wet. pour ëllëg sax seede. ne lii moo fi xew. mais ce qui se passe parfois ci cabine yi. ah. yàlla rek moom moo xam mm-hmm. doy na waar daal mm-hmm. ka dem yàlla na ko yàlla yërëm doy ban bisimila balaa ma dem ci am dégg nga dégg nga dégg nga dégg nga non weesu na weesu na doy waar ah, côté côté côté côté gis nga lu gàtt laay wax nga Sénégal gi wala Afrique mm-hmm. dañoo bëgg a développé développé gu ñu de xoolal ku gaaw a dee doo ko fekkee suñuy sët sëtaat soo moytul sax duñ ko fekkee parce que sama kàddu ga may wax tout le temps ñu naan dooy waxati na mm-hmm. mooy fi yëg yow jàkkaarloo maag yow nga yow sa bopp yow nga gën nga gënal ma sama bopp ma yéene la lu baax mhm. nga ñëw wut si ci man dara mhm. ma yéene la ko di góor góorgóorlu pour nga jot loolu parce que danga ko war a jot mhm. di la jox sa àq ak sa yelleef ci fi nga xam ne falaa falaa falaay liggéey te nga ñëw wut si ko ci man fekk ñu foofu dëkk bi du mus a dem jox sa xaalis nit pour mu yóbbu la màkka nga fay ko lépp ñu dem ba egg màkka la mu si siñanteeg yow fii senegal defu ci dara nga feebar yoru sa doom feebar nga dem ci hôpital que nekk ci hôpital bu war laa accueillir war laa dalal war a wax ak yow pour nga faj mu nekk fa di la toroxal di la toroxal ba ba malade ba faatu wala malaat ba feebaram gën a yokku ñun sénégalais yi ñoo koy defante ñun sénégalais yi ñooy defante yu bon ah yooyu yu defante yu bon yooyu ñuy defante nag fi fii dañul fii Sénégal mhm. xolal su Amérique ak France dajale woon seeni milliards xëpp ko Sénégal. du ñu développé. léegi da nga bëgg a wax dañoo am benn malédiction ñu baal ma ci ni ma ko waxee. parce que loolu mel ni loolu. non non dama dama ne la ñun sénégalais. ah fii ñu jë maanaam euh, bàyyiwuñu. Mm-hmm. di defante yu bon yu salte yooyu. Mm-hmm. loolu am ci dëkk bi di. ñàkk yërmande. waaw da ngay dem ci bërëbu léegi kay sa moroomu sénégalais def la lu bon lu salte accueillir la lu def maanaam nga déposé sax dossier man dama lay wax benn affaire dem naa ci benn rajo doon fa déposer demande pour liggéey yàgg na. fekk fa nit koo xam ne ma jàpp ni sama nit la. waaw ma jox ko demande mi ni ko joxal ma ko directeur bi. bi ma koy jox na dafa am ñu toogoon. jour ba ma ko wanee ginnaaw papier moom lañ doon ataaya. ngañ billaahi te kooku damaa jàppoon ni sama xarit la te moom dong laa xamoon te bërëb ba mhm. may ni sama demande ak sama CV yëpp jox ko ba ma ko wanee ginnaaw dama leen a bàyyi woon ñuy ataaye mm-hmm. kéen yee leen doon tekkee kaas yaak ji ci jàpp di ci ataaye te ña nekkoon di ma rëbul kenn ki woo ma ni ma sa ay sa demande bi moom leen doon ataaya nii de ñu am mun ma sa waay ji ko jox moom ba ba nga ko wanee ginnaaw lu bon la ci teg mais film nii film nii film nii instant bi ka animateur ba ma doon def lool ba ma ah. def lool ah. ah film nii nag wax dëgg yàlla dama koy romb ci tal bi di ko yóbbaale su yàlla ne waaw. yow nga di déedéet. sunu borom ngay xeexal. dëgg la njalu jëlal. njalu ndax xam nga ne li mu wax nii. Ah. dafa am sax gis nga ci bërëbu liggéeyukaay yi. nii ah. boo amul ful la amoo fayda. Mhm. boo dee gan dikk mhm. nañu lay accueillir mhm. dana ci am bopp yoo xam ne da nga leen di ràññee xam ne mhm. ñii duñu waaja dëgg la daf ñuy dal gis nga monde presse ñun ñii dëgg la léeg-léeg lay accueillir xeetu accueil boo xam ni da nga xam ne kii fiiraangee ko dal ak ñàkk gëm suñu borom te suñu borom noppi na wala bëgguñu ñëw wallaay noppi na Traoré <laughs> macha allah waaw Eva tey dugg si ngeen ci thème bu am solo macha allah eh. muy accueil uh-huh. te gis nga li tax accueil am solo mm-hmm. soxna Ami wax na ko sànq dafa ne kanam kaso koo ci tëj mu xam ko. xam nga nit ki bu nee salaamaaleykum. fay ko nuyoo. Mm. ubbi sa kanam ba mu ñeme laa wax li ko andi. Mm. moo xam ci hôpital moo xam ci marché. dangay ngay yor sa sax ñëw ci nit di jënd. Mm. yëkkati lii ku ne am nga droit dangay jënd. da ngay xool li nga bëgg. nga yëkkati lii ñaata. mu ne la nàngam nga ne waat ko lii ñaata mu ne la nàngam. nga ne ko lii ñaata mu ne ko foqati sa loxo ne ko wër ne la dema sa yoon. Mm-hmm. pour lan mais kiy jënd yor ay bëtam bu gisee li mu bëgg dina ko jënd waaye yëpp na ànd ak dal na ànd ak neexal parce que yow yaa bëgg àllam moom dafa ñëw di jënd yow yaa ko war a neexal am na ñoo xamante da ngay dem ci kees fekk leen fa ñëw bonjour ñu siggi xool la ko bu suuf daane lu muy bonjour du nuyu du nuyu salaamaaleykum di jaay tubaab pour lan mais fi nga ko fekk la. te bonjour bonjour. bonjour bonjour koy fay. wala bisimilah su ma nee la salaamaaleykum nga ne ma waaleykum salaam jafewul. mais da ngay gis ci ay nit ñi dañu ñàkk sax xam nga la ñun Sénégalais dañu ñàkk sax dangay gis nit xamoo ko guddi xamoo ko bëccëg mu ñëw ne salaamaaleykum nga nit ko kaw ba suuf rek bañ ko. te xamoo ko guddi xamoo ko bëccëg loolu mooy indi ak yi ba nga ko war a jox doo ko ko jox. ñi ngay bitim réew gi ñuy wax naan dañu mën a toppatoo dañu nàngam mm-hmm. ñooñu dañu fonk nit mm-hmm. dëgg la dañu jox nit gëddaam mm-hmm. dañu xam gëdd nit dañu jox nit daraja mais ñun dañu faalewul kenn ñàkk faale gi mu ngi commencé suñu biir kër parce que da ngay yeewu jàkkaarloo ki nga dëkkal doo ko ne salaamaaleykum di jaabante di dem ak ñëw jëndi sa ndékki ñëw togg togg sa añ añ bi sax boo koy teg da koy teg teginu ñàkkel sax mm. loolu kenn du ko def dañu war a seetaat suñu bopp yaraat suñu bopp façon manière waaw oh, dañu oh. war a yaraat suñu bopp ci lépp nag ci biir kër yi la commencé parce que li ci biir kër yi mooy dox di dem ba ci ba ci bureau yi mm-hmm. mooy dem ci ci ci ci kees fi ñuy mm-hmm. jaayee wala fi ñuy jënde mm-hmm. mooy dem ci marché yi mooy dem ci oto yi da dugg ci oto ne salaamaaleykum nit ne pat ñëpp ne ah, mais lan la bokk leen day bokk leen bàyyi dangeen daje ay doomu aadama ngeen nañu joxante cër ñàkk a joxante cër ba moo indi bañante bi ndoy baan di wax mhm. bëggante wuñu mhm. te loolu moo am Mm-hmm. nañu góorgóorlu ci suñu bopp vraiment. Mm-hmm. soxna soxna Amidia. nee naa man daal bu ñuy nañu ñaan yàlla taseeg ndaanaan. waaw surtout nag ndaanaan day naan la dimension yëpp nangu mm-hmm. lépp lu yàlla dogal. xam ne lii fi ne. macha allah macha allah rabbi Eva mooy comme li Ndoye Bane wax léegi wax ko man ci laay delluwaat. dañuy wax ne weñ gi mi ngi bañee ca mbànjaxaan nga. fa la weñ nga bañee. mooy nit ñi éducation moom la ñu manqué yar la ñu amul amuñu yar ndax tubaab yi ñuy wax nag bu ñu waxee. macha allah rabbi li nga xamante ne moom mooy arxuraan tubaab yi ñoom ñoo ko jëfe Eva bu ñu waxantee dëgg fii képp ku ñu fi wax ne doo jullit nga mer mais ñun yoruñu jikkooy jullit bu ñu waxantee dëgg ndax xam nga jullit àndul ak ak xol bu xat ak nit ki euh, dëgmal si la nga am loo loo loo loo ko dencal rek bëgg na tey nan naa ko ko sotti loolu àndul jikko ju ndax yonent bi sallallahu alayhi wa kenn ku nekk xam ne waxoon naa la fi keroog ne la mooy suñu référence bu baax yàlla waxoon nañu ne mooy suñu référence te keroog bi mu jógee gaaru xiraa toujours dañ koy wax mhm. keroog ba jibril wàccee ci moom la mu wàccee ci moom mu dis gann muy alxuraan mhm. mu ñëw fekk soxna xadijatu ca kër ga mais boo ko fa fekkee lan la ko def dalal la ko def xadijatun sakanat bi qalbi qailatan lam yuxizaka allahu fi daarayni laa takimi daf ko dalal moom xam ne ne eh, yonent bi jàq na ak manière bi mu duggee ci biir kër gi xam ne ne kii muy am na lu mu gis mhm. mais li mu gis xam na ko mais nee na sama borom kër daaw ma ko gis ci anam bi waaye mhm. mais yow tamit sa soxna daawoo ko gis ci anam bi comme li mu doy bandi wax nii léegi léegi ndax jigéen dafa am nu ko yàlla bindee dañuy wax akay mais akay fu ne la ndax damay tax problème yi bari mooy ci biir kër yi fa yi tàmbalee moo tax bu ñu demee ci ci yenn bërëb yi problème yi du fa mës a jóg Eva mooy damay wax ne jigéen dafa am nu ko yàlla bindee mooy dafa am ay cycle yoo xam ne bu fa tollee xolam du neex dëgg la te ñun loolu suñu góor yi xamuñu ko. te ñun boo demee tubaab bi loolu dañ koy lijjanti seen ay jabar bu ñu tollee seen période règle sa xol du neex. waaw boo jigéen boo tollee sa période règle dafa am yu génn ci yow yoo xamante ne. sa kii dafay dafay am yu muy wane yoo xamante ne ki dëkk ak yow muy sa jëkkër bu ko xamulee tàngu xol boobu mën nga ko xëyee. nga am cycle yi. waaye après nga ñëw seen cycle mooy am nga pare nga ñëw seen cycle. dégg nga jigéen fekkee ne nga noppi mais yaa fayan ma micro fii ñun ñett lan bàyyi ko rek jigéen su wannee lor lu ñu wax ëmb. xolam du neex. dëgg boo tollee ci tamit ci lu ñuy tuddee euh, ménopause. Mm. aussi sa xol du neex. yooyu il faut que ñun suñu dëkk ñu xam naka la ñuy dëkkee ak nit ki température nit ki ni ko yàlla bindee pour nga mën a dëkk ak moom Eva. Ah, ah, ndax dañuy wax ne nit ki soo ko xamul mu ñëw rëxee xolam neexul nga bëgg mu neex danga koy sonal. dëgg ki nga dëkk mu nekk sa soxna ba xolam ne bu ñëwee laaj ko lan la lan moo xew lan moo lay metti nangam ak nangam waaye fii man maa fii kilifa xam nga kilifa ma d'accord naa Eva yow euh, Ndoye Bane xam nga yàlla dafa wax ci alxuraan daal di wax ne ar rijaalun qawwaamuuna ala nisaa'i mais bi ma faddala llaahu ba'dahum ala ba'd maanaam yàlla dafa jël góor def ko mu nekk koo xam ne dafa war a taxawu jigéen mhm. mooy fu mu mënti toll njaboot gi saay boo xëyee ñoom nga koy bàyyeel caprice su njaboot gi yëpp mu yendoo ko ba ngoon jot mhm. kooku soo dikkee yow wàcc moom dafa a accueil d'accord naa dalal la mais soo ñëwee war nga ne ah, ba sonaluñu ma xam na xaw nañ laa rey xam nga xaw nañ laa rey goog dina tax ba lañ ko xawoon a rey sax mu nëbb ko daal na la gis nga moo am sonal nañ ma waaye noo wàccee yow tamit bàyyee ñu ci jàmm mais ñun suñu ma weddiwuma ko massa coono ajaratu waaw mi noonu massa noo yendoo xale yi xaw nañ laa rey da ne ko billaay rey nañ ma waaye yow nijaay noo yendoo ca bureau ba yow tamit neex yàlla dafa am fulla non dafa am ah, fulla ci waaw dafa am fula te fula gi mu am moom mooy lépp lu mu bind wala xadd karam na ba ni aadama la wax yàlla nee na dama teral doomu aadama li mu bind doomu aadama moom moom ma ci gënal mm. mais na ñu am li a mm-hmm. a la ko mm-hmm. ndax ñi ngi bañ nga ëmbee xol bu tàng gis nga boo xasee ba ëmb sa sa bu ëmbee Eva tàngu xol yooyu muy def mën na ko indiwaale indaale doom joo xamante ne noonu lay noonu lay mel hmm. fu mu dem war a accueillir nit wala wax wax ju neex du ko wax ndax ba bañ ko ëmbee kenn musul wax yaa ngi wax ju neex hmm. musuñoo raay biir bi ah, musuñu la wax ne sa sa lii nanga te yooyu dafay joué ci xale waaw di raay sa biir di ko def nii di ñaanal yàlla xolam di féex dina tax bu indee doom jooju juddoo xol bu féex man daal Eva li ma li ma ci bëgg wax mooy man daal bëgg naa koy wax ju neex man wax ju neex neex na ma trop macha allah neex na la bëgg nga lu baax yàlla dana la ba mu bare daal nga wax rek tam lu ñu mën a nangu rek sinon rek ñu fay sa micro yi tam. li ngeen wax mais ni man mënu ma koo nangu te fay li fay ñu seen micro. Mm. da ngeen ñun tam dañu am. accueil tey gis nga voilà waxati la ko li may daj ci plateau bi moom nga góor ñi dab ci seen kër yi ba moo tax suñu soo leen ëmbee kenn du seen biir <laughs> parce que da ngeen ñoo jàmm ak accueillir leen ñu jàmm. Ah. suñuy xëy surtout fitna la ñuy xëyee. Mm. suñu wàccee fitna lañ fay fekk ak wax ju bari. Mm. looloo tax. jàmm jooju ngeen bëgg doo leen ko mën a am. Mm. affaire bi bal la da nga la koy dóor. mu mm. dellu si. Mm. c'est mënuñu di dang dange di wuti lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu tere la njaboot gi lu ñu indi ci kër gi ngeen ñuy sonal ak wax ju bari di ñu sonal ak fiiraange di ñu for sonal ak vérifier ñun tam dañuy am cycle su weeru su weeru soree. ngeen ñuy laaj ay ay ay di ñu laaj ay fayu courant di ñu laaj ay dund di ñu laaj ay ay xam ne mu amuñu ko. loolu suñu cycle la day tàngal suñu xol yi. mais léegi nag benn jigéen laajatul nag. ni. Mm. sama nijaay bàyyi leen bàyyi na ci kër ngay jee ban ban femme yéen yéen yéen a ngi nii. Mm-hmm. yéen seen doom yi fi mu ne nii da xam fu ne. Ah, xam nañ ko balaa ñoo xëy leen dara seen doom yaa ngi ci si jànq yi ñoo ñooy topp. seen doom yi yow façon jigéen bi ngay wax. façon jigéen yu njëkk yi la. Mm-hmm. ñoom ngay wax. ba léegi jigéen ñi nga daan bàyyi ci kër yi ñu mm-hmm. kenn xamul. accueil yéen defatu leen accueil su seen jëkkër yi wàccee ngeen tànk ndox sukk toog ci suuf nga jaay massa coona yéen a koy def ba léegi ah bien dañ koy def defu leen dara dañu sukk dañuy raxas ay tànk dama ne seen jëkkër yi suñu wàccee duñ leen fa fekk ah yéen ngi di dox ngeen ba sax godoron ngi daan yeen ñoo ñuy accueillir góor ñi ak góoru senegal amatuñu jàmm seen biir kër yi c'est ça la réalité mm. nit yi góor ñi ci bari ñu ngi fii xanaa ñun góor ñi dañoo war a woote ñu bari ñëmu ñoo woote wax ko mais Ndoye Bane jàmm dañ koy jox doxante xam nga wala hunna mislu lazi alayhinna bil maaruf yekk googu noonu wala hunna mislu lazi alayhinna bil maaruf Ndoye Bane xoola xam nga yàlla dafa wax ne njëkk gi dañ ko war di joxante wala hunna mislu lazi alayhinna bil maaruf mooy kenn ku ci nekk li nga bëgg sa morom defal la ko da nga ko koy defal Ndoye Bane waaye maay kilifa su ma di yuuxu nit ki di ko gëdd ba pare bëgg na soo dikkee di nga ko fekkee xol xol bu neex dinaa la yuuxu dinaa la gëdd su fekkee da ngaa jël sa place jox mbindaan mi su may xëy mbindaan mi la su ma wàccee du ma la fa fekk mindaan mi la. mais mindaan mi yaa koy fay. waaw ah. su ma ko dee fay nag takkuma mindaan mi. waaw te ma su ma juumee de de dëbbenu à gauche gauche am lu lu ñuy wax déggoo déggoo nga ni soo juumee. c'est que man mi mi. d'accord yow laa takk. su may xëy yow laa war a gis. su ma wàccee yow laa war a fekk. su may tëdd war a tëdd mais gisuma la mindaan mi laay gis. mais tâche ménagère yooyu dafa ci islam du force. du force de lan moo du force xool sax koy def da ngeen ñoo war a fay mooy liggéey boobu du force bu tax ñu lay fay mais yow lu tax ñu lay fay ndef doy baal ndax ñu ngi joué man tam man di dang dang vous di dang dang di di wut lu ma la jox di wut lu ma jox sa njaboot gi ñoom lañ bokk pare di guddi gis nga damay gis nga damay tënk euh, damay ah, ñëw euh, amidia dina ci dolli mhm. Mhm. waaye waxtaan boo gis dañ cay waxante dëgg dinaay wax toujours bu waxee man ko ñun ay jigéen la itam mhm. yàlla may na ñu màggataguñu fii waaye dox na nu tuuti nag recevoir na nu xeetu jigéen bu ne jigéenu Sénégal yi seen xol dafa jeex ne leen benn doy baan laisse-moi continuer jigéenu Sénégal yi bare na ci ñoo xam ne dañu malheureuse jigéenu ah, Sénégal yi lanu gàttandu attanuñu ko bu dul ne yàlla dikk ñëw jàppale leen jigéenu Sénégal yi kontaanuñu. Mhm. léeg-léeg ci yenn borom kër yi ak ñama ko war a wax. ndax dañu dem ba benn jamono boo xam ne. Mhm. man dinaa ñëw ci muñu jigéen. parce que wax naa ko sànq. Mhm. jigéen salaam la saxin la. lépp luy neex rek neex neex. jigéen yàlla defal na ko ko. kon kooku dafa war a dalal këram seddal këram def lu ànd ak loolu. mais gis nga les femmes. gis nga wallaay du waxu télé. la soo toogee Amidia nga teg fii sa kaye ngay bind. yow di bind ba yéemu tu vas ci ban monde. monde la ñu ne yàlla xam na a yor doom mais a eh, eh, gi mm-hmm. yaa mm-hmm. ay problèmes personnels léeg ki nga xam ne moom la la yàlla teg lan ngay gën a ngeen commencé ko tey je vous assure ubbi leen ngeen mm-hmm. dugal ci góor ñi ak jigéen ñi yaa ngi ci infidélité yi yaa ngi ci mensonge yi yaa ngi ci ñàkk surtout def ak ki lan ko war a jox du caaxaan yëf la boo xam ne il faut que ñi nga xam ne ñooy sunu ay kilifa. ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox voix ñu war a wax ak ñi ñu war a waxal. ñu wax ci parce que bu yàggee mariage mooy feebar. dëgg la feebar jamono bii mm-hmm. la maamu Ndeye Maguette Ndiaye doon wax ne sëy dee na ca année 76 ya ma nga tëdd yéen a ko rey yéen a ko rey de yéen a ma nga tëdd si météru mariage da gis nga mariage yéen jigéen ñi yéen a ko ci accueil la ñu nekk doy baal ma ñëw mais accueil accueil c'est la c'est la plus belle chose au monde l'union de deux personnes qui s'aiment mm-hmm. ngeen bëggante dans le respect mm-hmm. ngeen bëggante dans l'amour ngeen bëggante ci lu ñuy wax yàlla moo bëgg diggante bii mu nekk ci war ngeen respecté seen bopp ku ci nekk fekk war na buy tata bu nijaay wàccee. 17h mhm. buy ñëw mu kontaan. Mhm. sunu yaay yi loolu la ñu ëppale woon. Mhm, da nga daan am sa yaay xam ne. bëtam yëpp pour sa waajur bu góor la nga am sa waajur bu góor gis ne bëtam yëpp am na ñu naan sama borom kër bu dee ma dee ndeysaan gis nga ko ay mag yu ko doon ñaan yàlla ni la fii sa borom eh, am na am na gis nga loolu na gis nga li ñuy wax nii yéen yéen ñu bu rey ngeen ñu ban dee te gis nga ñu ngee wax nii ba tey itam am na góor yoo xam ne soo waxtaanee ak seen soxna bu nu la romb rombee da leen di ñaanal yàlla ndax témoignage bu rafet parce que itam exception am na ñu ñëpp a bon ma doon wax ne am na suñu way jur yi dañ daan wax alaaji yàlla boo ma rawee lu bare nga dégg kilifa gi ne soxna fi yàgg fi de mhm. ndax boo demee ma dem am na ñu mën a woote témoigné loolu nga gis xam ne ca septième jour ndeyam wala baayam ca la keneen ki génn àdduna ndax dañ ci dogu woon waat dañ ci sëy dañu koy fowee et c'est dommage yaa ngi sëy yaa ngay jooy sa dënn bi mi ngi tort bi xool mi ngi jeex subhanallah nga nampal sa doom ronga ñi di yaa ngi nampal doom ronga ñi di bëgg a rey sa doom loolu na fi am nañ ko waxte di lu bon xam nga fii lan la Sénégal la moo fi nekk da ngay ëmb di jooy wasin jaaxle wasin di jooy la nga fekk fële la nga fekk fële non non xam nga li ngay njëkk a jooy mooy mooy mooy mooy ak accueil bañ lay accueillir ci hôpital ba moom ngay jooy ba ah, pare bu la yàlla muccalee foofu ba andi la ci kattanu yàlla ak xam ci kër ga mm-hmm. nga des nag di jooy loo tere la njëkkee goro mm-hmm. des di topp parce que dafa non non gis nga euh, naar yi ngay wax dama la ciy wax tuuti mm-hmm. xam naa ci dara gis nga naar bu àndeek jabaram jabar ji moom mu bëgg dara war ko gisee ko fële. jabar ji nekk fële miyaa ci accueil waaw lañu nekk ci accueil lañu ji nekk fële. day daw toppaat ci moom ah. la di ko laaj. Mhm. ndax bëgg na mhm. ndax rafet na ndax baax na di ko neexal neexal boo xamante ni yow sa yaram day daw. dëgg la bu ñu ñëwee nag fekk la yow nga am noo leen accueillir. Mhm. dañuy daan ne jabar ji rafet na. waaye gis nga ak lu ñu ko bëgg bëgg bëgg. su fekkee accueil ba baax ñoom dañ ko fay teg dem seen yoon. mais wax la ne accueil amee solo. ci ci ci nit ak nit bu ñu jugee ci wax accueil dans les milieux administratifs, mhm. effectivement mi yaa mais aussi tu la l'accueil à la maison aussi à mhm. son importance dafa am solo lool ndax nit ki mhm. la mu def ca biir këram dong lay génnee macha ah, allah yaa Seyda Seyda bismillah dama bëgg déglu ma te jox la bal bi waaw d'accord soo dee góor gu normal mm. man pour man li ma jàppe góor gu normal mm-hmm. jànge ko ci sama baay mm. ah. mooy góor goo xam ne da ngay takk jabar fa nga ko war a takk indi ko ci kër gi mm-hmm. di ko defal la nga ko war a defal di xëy di joxe dépense. wodd ko xaw ma ni ngeen koy waxee noonu. et mm-hmm. tout dëkkal dëkkal dëkkal. liggéey wàcc heure. tëdd heure mm-hmm. respecté sa soxna mm-hmm. soo ne amee njaboot nga topp toog Sénégal soo melee noonu noonu noonu fii Sénégal sa jabar du la respecté mm. loolu nga oh. foog xoolal hmm. mën na la ba respecté nit ñi mais day dem ca moromee ma yow wala ay ñoom yaayam hmm. naan fii laa ko fas hmm. fekk yow de da ngay def rek ngir yàlla parce que lii nga war a def ni ngeen wax ni naar yi noonu la ñuy toppatoo seen jabar góoru Sénégal bu ko ci mel am mais boobu boobaa ndoy ban dafay fekk rek mu nekk ku ñu yarul kon da wax fi léegi da ngay a ngeen mel yéen ñëpp nga naan ma la déedéet ndoy ban fa ndox daan taabo boo demee ba de fekk fa tepp teppal ya yéen góor gi li ngeen góoru jigéenu Sénégal mhm. góor gi mu gën a jox respect mhm. teg ko palaasam mhm. mooy góor gi kay sonal maanaam fi muy toog di dute mooy moo tax ngeen ñuy toroxal kon non non ma fi mais soo kon loolu lañ gën a bëgg moo tax ngeen seetul jigéen gi nga xam ne moom la jëkkëram di gën a toroxal du du du tas du fay falay toog mais jigéen gi jigéen gi ñu gën a gàtte seetlu mooy gën a indil problème jëkkëram. baax du ñëpp du ñëpp de. mënul doon ñëpp ku amul xel lay doon doy baax ku amul xel. loolu mënul doon ñëpp yéen jigéenu Sénégal xamuñu góor gu koy gàtte góor goo soo sa jabar yambar lan lay teg. mais ba tey mais buñ ko xamul yéen ngeen def seen warugar rek. kon ah, su boobaa nga dem yambar ba kan yambar ba kan non mais yàlla mooy fay. yàlla mooy fay fii laa ko def sama mère bi. sama sëriñ bi lan bu jëkkër ji ne salaamaaleykum bu normal ci kër yi dafa mel ni am naa am naa am naa téléphone ndax euh, Ndoye Bane calme waale tuuti. Ah, ah calme leen may calme. ayca euh, ki ma lay ki ma la doon wax te naan la yéen a nuroo jëkkër ji Tra la Traoré la sant. gis nga bu bu bu jëkkër ji ne salaamaaleykum. yow da ngay am envie mu la fay fekk. noo xam nga accueil Eva dafa am solo. man dama bëgg nit ku dal. wax wax ju dal wax ju sedd wax ju neex. Mm-hmm. parce que jàpp ne ki kott fóon fii fóon fii tàpp tàppal ko. Mm-hmm. kooku dafay dalal xelu nit. Mm-hmm. bu jëkkër ji ne salaamaaleykum da ngay gis ni mu koy accueillir. jël ndox jox ko. dama ko naan ko sëy yu yàgg yi. bu jëkkër ji lekkee ba pare. ba ne ko merci neex na bari na. mu daal di koy tàgg. ni ko xaw ma Aminou Traoré xaw ma nag na nag na nag. ma ni ko waaw mm-hmm. xam nga loolu. xam nga xam nga kon loolu la. boobu akay boobu akay mais <laughs> boobu akay kooku jëkkëram mu ngi koy dundal ah, moom. waaw xam nga loolu neex na. waa léegi ne bu fekkee am na beneen góor boo xam dafa am contraire. Mm-hmm. mais na seet jabaram. Mm-hmm. très bien. na seet jabaram bu ngeen gisee ñu taxaw tuuti teg loxo teg loxo ci biir kër yi wax naa ko waxaat ko nee nañu répétition moom c'est d'ordre pédagogique macha allah dañu xam ne rek. ku ci nekk na ngay xëyee na ngay comporté woo ca bureau ba loolu doo nga bàyyi sa biir kër nañu gën a rafetal sunu comportement gën a rafetal jëf yi mhm. la nga xam ne moom mooy sunu liggéey te ñu ne ca nañu xam ne liggéey bi ñun ñoo ko choisir choisir ko ànd ak yàlla d'accord ci jox ñu ko mhm. te moment bi ngay liggéeyee ba defoo ci la ca war nit a nga toog fële ca boppu angle ba ma ngay ñaan yàlla liggéey boobu nga ne yàlla mayoon ko ko mm, soxna Abidja dëgg la dëgg la macha allah a ngi toog euh, soxla liggéey boobu pour am ko ko li nga am sa amuñu ko kon soo ko amee war ngaa xam nan nga koy téyee Eva mooy comme li nga wax rek ci lay delluwaat nañu rafetal suñu diggante yi tey yokk nag yar bi ci biir kër yi euh, te ñuy li rafet li ci biir kër comme ni nga ko waxee loolu bu rafetee rek day day day raam dem ba ca bërëbu liggéeyukaay ya daal di fay gën a rafet ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ daan wax ni soxnaam sax bu daan nekk ci li nga xamante ne nii moom mooy biir waañ bi mm. da nga daan gis daan ñëw di ko jàppale ci biir waañ bi loolu lépp ngir bëgg ambiance su kër gi rafet moom ak neex moom moo ko taxoon dara mës na xew mu jël ki nga xamante ne ba seeti naa Aïcha mu bëgg a seetaan comme moom dafa gàttoon nit ku tuuti la woon mënul seetaan yonent bi jël ko tingoom ko métti ngoom ngoog yooyu yëpp man li tax may insiste lool ci accueil ci la ñuy wax mais accueil mi ngi tàmbalee ci biir kër ah, Eva ndax am na benn nit yàlla boo xamante ne dafa takkoon soxna waaw loolu ci ci oyof la ndax loolu bëgg sa kër neex pour jënd ko ku leen mën a tungoom ah waaw li tax ba kenn mën a tungoom ba mu koy tungoom daa fekk kooku mu attan ko rek mais soo yoree jeeg bu ñu faaj kii soo ko tungoomee foo jëm soo dugg duggee doo doo jóg mais mais mais dara ah, xam nga ci xol la rek yow xol la rek nit lu mu diis diis bu ko sa xol yanoo rek nga attan non non non non non non nga di ko attan xam nga yooyu yëpp bu ko soxal mais dara na ko soxal na ko attan rek bu ko soxal attan nga di nga di ko yanu ah, macha allah ndoy baat ah, Eva li ma bëgg a wax moom mooy li ñuy wax hmm. si góor ñi dañ koy wax si jigéen ñi ndax dañuy wax ne jigéen bu nekk lay hmm. neexal këram yaakaar naa ne dina ko bëgg ndax loo xamante ne dafay euh, tilimal liggéeyam yaakaar naa benn jigéen bëgg ko ak lu koy xajamal moo xam ci bërëbu entreprise ba nga nekk la ndax lay tax ñu di la dàq hmm. yaakaar naa nit ku nite ku nekk am xel waroo def loo xamante ne nii soo ko defee suñ ca paree di nga ñàkk sa liggéey <laughs> kon yaakaar naa lay tax ñu téye la fa loolu lañ war a jël waxtaane ko mooy ñu rafetal jikko yi de déjà mais mu tàmbalee ci biir kër yi ndax dafa am kenn koo xamante ne dafa benn nitu yàlla la woon dafa takkoon benn soxnaam papaam ñëw seet si soxna si ci biir kër gi mais bi mu ñëwee soxna si ni mu accueillir papa ji neexul mooy ñëw na mu ne ko koy seet mu ne ko borom kër gi laajte mu ne ko nekk fii xam nga mais na mu waxee ak moom xajama xajam ba nga xamante ne paa bi xolam naqari mu ne ko su ñëwee wax ko sax kaay toog mu ne ko su ñëwee ne am na góor gi fi jaaroon doon ko seet waaye buntu këram gi fi mu ko def du fii. mais kooku xamul lu mu ko wax. borom kër gi dikkee mu ne ko am na ko fi ñëwoon di la seet mais paa bu lakkale bari wax mën a laaj moom daal wax na ba wax ne sa buntu kër gi fi nga ko daaj du fi ko changé mu ne ko kooku sama waajur la nee na sama buntu kër nee na yow mi nekkoo sama sox ndax nekkoo ko nee na naa la fase takk beneen soxna mais dafa takkaat keneen bi mu ko takkee kooku dafa ñëw paa bi ñëw mu ñëw mu ne ko papa bisimila exil massa mbaa sonnuloo yoon bi daal di koy may ndox ne ndooy baan pour wax la ne fu lii na ko papa baa sonnoo ci yoon bi may ko ndox mu naan mu bëgg a dem mu ne ko déedéet papa doo dem man sama añ bi may togg nii ah yow mi yaa tax ma yokk affaire ba tax bëgg nga lekk tam bala ngaa dem duñ ci mos mu ne ko déedéet baal ma rek dafa am leneen lu may doxi loo xamante ne ni lu urgent la waaye sa borom kër bu dikkee ne ko buntu kër gi fii mu ko def fii la ne la am na ay nit yoo xamante ne Eva ba léegi yar nañu leen ba léegi ñu ngi bëgg lu ku ne sa caay-caay da dalaa jege mm-hmm. lay tax caay-caay ga génn war nañu moytu di laalante ci suñu biir ba tax mm-hmm. li nga xamante ne ni moom mooy caay-caay googu di génn ci ñun su ko defee ñuy gisante mbaax rek ci suñu biir waxuuloo leen naa si xus na ñuy waxante wax ju dina tax suñu dund neex dina tax kër yi neex dina tax lépp loo xamante ne bëgg nañ ko suñu diggante dina neex jërëjëf soxna kontaan naa loolu yow Ndoye baan am na kuy jubilé ci yow nee na vive Ndoye Bane. Ah, mais oui mais oui mais bari na ci morom nag bari na ah. kooku Thierno la koy wooyee baal naa ko sant. ma ca Cameroun ma nga ca Cameroun daal. nee na ah, <laughs> vive Ndoye Bane. Euh, soxna si yow itam bàyyi la nga tàggatoo. waaw xanaa li ñuy tàggatoo rek mooy xanaa di bàyyiwaat xel sunu bopp rek. di mhm. ko waxaat nit ñi. Mhm. ni nit buñ la tegee ci bërëb. ku la mm. fa fekk rek na nga ko jox cër. dëgg la ndax yàlla nag mu ngi jël ay mbiram dëxañ ko ci doomu aadama yi. Mm-hmm. mën ngaa ñàkkal sa nit mu nekk sa musiba. Mm-hmm. waaye mën ngaa dalal nit defanteeg moom lu baax waxanteeg moom lu baax. Mm-hmm. mu dem xolam sedd. xam nga nit ki li muy wut si c'est pas forcé pour nga jox ko ko. bu ko fa fekkee mën nga koo jox bu ko fa fekkul. mën ngaa wax ak moom wax ju tey joo xamante ni. bu demee wane ginnaaw xolam day sedd day mel ni li mu doon dox moom am na ko. lépp ci akay waaye salaamaaleykum eh, taxawal ne. même ma jàll puusal ne taxaw defal nii mm-hmm. daal lay def benn façon boo xamante ni yow sa fit dafay dem dootoo fa bëgg ci dara ci àdduna mm-hmm. bu dee feebar la sa feebar dana yokk mm-hmm. bu dee këyit yooyu toppatoo sa àdduna dina jaxasoo ba da nga naan lii fan laay jëm wala fan laay nangam fekk na nañ la accueillir accueil dafa am solo nit sax sa doom ji nga jur sax bu egsee ci yow da nga ne ko puus bu ma takkal sama nangam bi xale bi bàyyi ko mu langaamu la ngeen kottante kalante tafante loolu dafa neex day dundal nit yal nañu yàlla defal jàmm daal doolu ñu sutura te fexe nit ñi fu ñu na rafet te ñu bëggante suñu biir loolu rek moo ñu manqué. Mm-hmm. bu ñu ko defoon rek dem nañ Eva. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah jaajëf. kon eh. bokk ñu ngi nuyu Seydi Ba man noonu laa koy woowee Seydi Ba de Breu depuis Bamako ba nga ca Bamako à Bamako. kon ñu ngi lay nuyu di nuyu les Bamakoises les jolies Bamakoises ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. Bamako joli déon yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu. ndoy baan nee nga ndeysaan ku ci am lu diis foo ko yëkkatee macha allahu tabarakallah lu la yàq sañ wax ah, waaye xam nga bu la yàlla joxee taille 36 mm. wala taille 34 nga dem mu nekk sa loxo taille 50 mm. war ngaa sant sunu borom xam ne yaa góor ngee góorgóorlu te gën a toppatoo kamu la joxoon dañuy gis dans les maisons ndeysaan ku doon yëg ca talon ba yëgatul ca talon mm-hmm. nga jëndee ko kuy yëg talon yooyu yëpp ñàkk xam àdduna la mais ànd dafa war a dëggu ànd dafa war saa su ne booy dalal nit ki rek nga dalal ko ci mm-hmm. jàmm mm-hmm. mu kontaan macha allah li ci des nag bu nu paree rek. ci émission bi daan la ko daan la ko wax di nga ñu dégg incha allah. ay <laughs> ca doy ba dégg nga eh, eh, eh, Eva tamit jigéen ñi yaa ngi yéen ma attaqué yéen a ma yëngal tey. Hmm. mënoo tey jii doo accueillir sa borom kër ci kër sa ca kër ga. du fa dégg wax ju neex. du fa dégg du fa xeeñ ci lu neex. maanaam amul dara lu neex ca këram. Hmm. te yow ku jigéen ki soo demee sa biro di accueillir sa jëkkër sa sa sa directeur ak accueillir bu neex bala mu naan kafe nga defaloo ko kafe suy génn ngay xool bu yi di toppatoo sa sa directeur mm-hmm. te ni ngay toppatoo sa directeur bi wala sa seef bi doo ko toppatoo sa jëkkër ah donc yaa mm-hmm. loolu tam yaa problème mm-hmm. may jaale sama benn xarit bu xam ne maa ngi moom ñoo bokk sëñ Bass Abdou Khadre di Souleymane Kébé mi nga xam ne moom waaw moom mooy waaw moom moom mooy secrétaire u sëñ Bass Abdou Khadre waajuram wu góor moo wàccu liggéey bërki dem di Ousmane Kébé ñu ko koy jaal bu baax a baax sunu ko yàlla xaare àjjana di bàyyi ci Souleymane Kébé di secrétaire u euh, Cheikh Bass Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér waaye ci jigéen ñi ngeen góorgóorlu baax ci accueil yi mm-hmm. ci biir kër gi mm-hmm. euh, les hommes sont morts depuis yàgg dañuy dox nii rek mais dee nañ bu yàgg mm-hmm. mais euh, allah <laughs> jërëjëf yàlla ngeen dund ne bu ngeen dundee moo nu gënal yéen jur sunu ay doom jàmm rek leen mën a ñaanal moo tax bu ma gisee sax léeg-léeg ñaari way dencante wax bu xaw a ñàkk teggin bi ca jóg mhm. damay wax ne danoo xamul àdduna yàlla mhm. dafa bëgg lu yiiw mhm. kon nañuy yiiwal diggante yi di baaxal di gën a baaxal diggante yi macha allah am na ci solo ñu ngi leen di nuyu yéen waa London ñoom Oumy Ndiaye ak ñoom Roqi Ndiaye ca London ñu ngi leen di nuyu Seyda Hafsa mi ngi lay nuyu Seyda Hafsa bu Sen TV Seyda Hafsa bu Sen TV <laughs> boole ci club bu xaritu Eva yi <laughs> ah, macha ah. allah man nag ay Seyda rek ma wër <laughs> nopp ngeen ba ma wàccee fii rek di ngeen am problème <laughs> kon mbokk mi yàggu yow itam ñu ngi lay remercier bu baax ndax léeg-léeg dafay mel ni moom mi ngi ci plateau bi loolu yëpp ñu koy remercier remercier ñoom Mass ñoom euh, Euh, petit Ndoye remercier képp ku toogoon di ñu seetaan lu dul jàmm jàmm ko gën ku def lu baax am lu baax leptoo faytoo xool leen la ca gën a rafet rek ngeen def ko mhm. ndax boobaa macha allah di ngeen ci am loo xam ne ngëneel la di ngeen ci am yokkute suñu borom dina leen ci gën a naw gën leen a sopp macha allah mhm. te ku yàlla sopp ku ne rek nga barkele kon mhm. boog yàlla yàlla sotti barke ci Sénégal bi yëpp macha allah may remercier yaayu Habib Chalar Mariam Sey maa ngi lay remercier pour la belle robe macha allah lii moo tax ñaw bu baax baax. parce que depuis fort longtemps maa ngi koy sol te mbub mi saa bu ma yeewoo mu gën a bees. Mm-hmm. kon boog soxna Mariam sama xaritu bopp jërëjëf à toi ñu ngi leen di wax bon appétit à tous di leen jox rendez-vous altiné ci kattanu suñu borom di leen baalu ak itam jëre ngeen jëf macha allah. Mm-hmm.